ñu takk ci. ñu takk ko ci biir gaal gi. ñu takk ko ci biir gaal gi. takk gémmiñ gi takk loxo yi takk tànk yi. waaw. diggante cinq heures ñu koy wër ba ay vingt lañ koy soog a gis. ci lañ koy soog a gis. benn xale bu góor fi ñu dëkk ci njaxase ak ñu fi ñu dëkk daa sore. mais mbaa defuñu ko dara rek. non non defuñu ko dara mais en fait damay liggéey ak ay ak ay burkinabé. ay burkinabé. léegi damay farataal di bàyyi xaalis ci kër gi. Mhm. en fait que nag contrôlé ma xaalis bi fi ma ko dencoon ndax manqué na wala manqué woo. Mhm. léegi moom benn jour retiré naa xaalis bi ma dem ndar pour uti jëm. waaw. bi ma demee ba foofu ma calculé na xaalis bi dafa manqué. nga calculé ma ci kër gi. Mhm. ñu ñëwee ma toogal sama xol ma ne ah man damaa dencoon xaalis waa bu bëri. Mhm. léegi après. ñu ah, loolu nan la mën a nekkee man jëliwuma sama xel ne xale bi. war na mën a jël xaalis. di ko jox ñooñu. ok léegi après. Mhm. moom bi nga xamante ne xaalis nekkatul ci néeg bi. waaw ci lañ ko commencé di ko menacé. ok fekk na man génn naa pour dem xool ji daal ndax amul ku jël ci man xaalis te yóbbu ma yooyu daal. Mhm. dañ ci benn maara bu nekk côté Mbour mhm. ma demee foofu kooku leeralal ma ne amal ah, na gisuma sa yaram dara. après. ci lañ ma woo téléphone ni ma sa doom école maanaam ay ay dix heures yooyu. ay dix waaw. waaw woo ma ni ma sa doom daal fan yii bu jàngisee day jooy ci classe bi te ñun laaj nañ ko laaj nañ ko lool. mais leen man damaa génn mais dina am boobu demee dem naaf ka naaf koy dogaale di ko laaj di ko laaj xaalis. waaw. ba jox na sama caabi. jox xale bi jox sa caabi yow. ñoom ñoo ko mën naa fi mu jox leen caabi ma daal di jóge foofu ñibbisi. bi ma ñibbisee ma dem police. te expliqué leen li ma la wax nii. waaw ñu ne la mbaalaal ñu ko man nee ne déedéet. ñoom it ñu woo ko xale bi ñëw ñu laajte ndax waxu la waxu saay saay wala waxu xale bi mu ne déedéet moom daal xaalis lañ hmm. bi nag xàmmee na leen. waaw moom wax na police nag xàmmee na leen. Hmm. bu leen gisee moom xam na leen ñoom ñett ñëpp xam na leen. ok léegi de cela ma delluwaat sama nekkoon si dëkk fii ba tey xaalis bi man. maa ngi hmm. yaakaar ne daal sama loxo la jóge te xaw ma ko ma ko jox. wala dañ te yëgu ma ko. le dimanche ma dem Mbour. waaw ci paa bi ma la doon wax. waaw. ñu woo ma ñu ma mhm. ah sa doom dañ ko fekk ci gaal ñu takk ba mu dëgër. Mhm. ma ne xaa ah, ñu ne waa ma ñibbisi si guddi gi. dem mhm. police la même chose. waaw naa xale bi nag parce que moom dafa tiit. léegi ñu ne xale bi nag xàmmee nga la xale bi nag bu leen gisee moom xàmmee na leen. léegi ñu xëy dem police bi ñu demee police suñu toog tuuti rek xale bi jékki rek jug daw. jékki-jékki jug daw. jug daw topp leen ne moom gis na kenn si ñoom kooku lay topp ci biir marché bi. waaw. laaj ñëpp tas si biir marché bi. Mm-hmm. ñu gis leen après ñu yëg si extérieur daal de di daw di dem ñu ngi topp ci jàpp ñu leen. Mm-hmm. waaw léegi bi ñu defee loolu ba ay trois heures. Mm-hmm. ñaari homme de tenue ànd ak ak moom mais dañoo bëgg xale bi wax leen fi muy jaar chaque jour comme heure yooyu lañ koy topp. muy jàngi ak buy wàcc. bi xale bi ànd ak ñoom nag buy retourné daal day ci li mu wax. ñu mhm. leen kii si la bokk. Mhm. dëkk bi yëpp nag xam nga jaxasoo rek muy dëkkule bu xam nga rek. waaw ñu ne bàyyi leen ñu dóor ko police yi jàpp si ba ñu di ko yóbbu police. Mhm. biñ demee moom mu ne mosul xam xale ba xale bi ne ko yaw joxuma la xaalis bi waaye ñi nga àndal. ñaar ñi nga àndal ki am rasta yi laa jox xaalis bi. chaque jour moom laa jox xaalis bi léegi nag xam nga ñu ne xale bu jóg si lay liggéey bokk di moom kii lu def loolu ndax am na fa am na nangam. Mm-hmm. bari daal bari ci démb laa dégg bàyyi nañ ko. bàyyi nañ ko. bàyyi nañ ko xale bi nag ba su may toog nii di wax ak yow nii. Mm-hmm. jàngeetul. Mm-hmm. du nelaw. parce que dafa tiit. effectivement. ci la takk ci gaal bu géeyoo jotee dinaa ñëw tëmbal la ci biir géej gi far ñu gis la. instant bi jàngam laay xalaat mu ngi nii toog jàngiwul. xaalis bi nag jënd nañ ci un million et un million et quelque. un million bu teg lañ jël ci xaalis bi. ok maanaam moment bi muy jox xaalis boobu cinq millions cent cinquante mille moo fi ne te moomu mm-hmm. la mm-hmm. ci jël. ok. sama doom laa amoon ku ma dimbali si moom ndax man mm-hmm. man maa koy fay de un. xaalis bi maa a liggéey ci boppam. moom laa pour bàyyi ko fii. ndax fan yii paase am na benn waay bu fi ñëw doon na indil xaalis fii lañ ko agressé sama buntu kër presque jam ko paase jël ci moom neuf cent mille rawantew ñu hmm. ñaari weer ok léegi police bi ñoom instant bi lan mooy seen taxawaay ñoom fi mu toll nii waaw ah, ñoom seen taxawaay moom woo nañ ma mardi mm-hmm. ma dem ñu laaj ma ni ma xana xale bi ma ne ñu nga maa leen ma mu ne mu ngi ci jàmm mm-hmm. mun ma est-ce xam ne xale bi dafa tii ba dinañu wan koo xamante ne nii du kooku Mm-hmm. ñoom loolu lañ ma wax. ok dafa nekk ci tiit te xel mi toogul encore. Mm-hmm. man leen ah ba tey mën naa nekk parce que guddi gi du nelaw lu yëngu rek day jug pour dal. ok dafa amee traumatisme quoi. mu ngoog te man ma mm-hmm. fa di fi ne nii yoruma dara dara dara dara démb laa ko mujjee yóbbu hôpital démb. ok put mi mooy metti instant yi ndax takk bi dafa yàgg. en plus mu bëgg jóg fi mu toog mënul jóg fi mu toog. mais daal médecin yi confirmé nañ ni kenn defu ko dara daal médecin yi confirmé nañ loolu. kenn defu ko dara. Hmm. defuñu ko dara man yóbbu naa ko démb laa ko mujjee yóbbuwaat. ok ordonnance yaa ngi jënd naa ko ba pare. ok ci ay menaces daal li ma mën a seetlu ak li ma xam. Hmm. ak li ma yëg. Hmm. mooy ci ay menaces la nekk. ok. parce que bu fekkee ci dëkk lañ dëkk. ñoom dañuy xalaat dox ba daje ak moom mu ne kii la. parce que xam nga xelu xale. mooy loolu mën na dem ba fàtte jékki rek un jour viendra nga dox ba dajeeg moom. effectivement effectivement. man loolu laay xalaat. Mhm. lu neen mën na ci nekk lu ne xaj na ci. effectivement samay pièces jël sama néeg. am mhm. nañu ko for. ça veut dire que dugg nañ ci néeg bi. Mhm. te man fi ma nekk dama fi luwe. ok du kër laa ne. fi ma ne amul sécurité. këru lu yaatu la ñi nekk ñëpp ay laakakat lañu. en sécurité. effectivement. voilà loolu moo nekkoon sama problème may daal ku ma xelal. defal lii wala taxaweel nii loolu daal. ma gis seen numéro woon ci ci portable yi ci laa ko jëlee kenn joxuma ko man maa ko vérifié ba ko. dëgg la. mais kenn joxuma ko comme da ngeen a lancé message ku leen soxla. loolu moo ma jël ko nii. mais bu ma wootee pëlu si bar pour am lu la leer. dinañ la wax lu leer na demee yëpp. ok d'accord léegi yow fan nga dëkk ci bar ñi exactement adresse bi. man maa ngi dëkk Bargny Géej. Bargny Géej. waaw. d' accord numéro bii mooy sa numéro. bii mooy sama numéro waaw. ok d' accord léegi xam nga nu ñuy def. Mhm. fii ak lundi. Mhm. dinaa la woo téléphone ma envoyé éléments yi foofu ñu ñëw waxtaan ak yow. Mhm. comme ça ñu mën a am tous les détails. ñun bu ñu fa jógee daañu demal suñu bopp ba police incha allahu rabbi pour complément bi. après incha allahu rabbi lépp ñu ci mën ci kàttanu borom bi dinañ ko ci def incha allah. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal jaarama jaarama jaarama jaarama mbeñu gana ka mariam moolo mawdo lay jaar ji ko naani maki aja kumba min koye mbeɗa yima ceɗɗo mbe ñuganna sammare ngolo barogo debbo siré dia seeri mariam fayto jarama sénégal katti manango figo figenum genula ndax réew mi réew mi réew mi réew mi fi mu toll ni liggéey dafa waa Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Sénégal 4 TV yow yaa ko moom ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le Sénégal 4 TV forever.